teewlu suba léegi. alors dalal ak jàmm Kajoor la revue web dañ koy tàmbalee ak PDS ñoom nag nekk ni tey la déposé ab recours fële ca Cour Sénégal nag moom moo ci àdduwaat taataan daanaka jàllale li nga xam ne euh, moom la ci euh, Mamadou Ibra kan wax moom journaliste bi nga xam ne nag euh, tey dafa dugg ci langu politique bi jiite kuréel gi ñu duppee demain c'est maintenant lu mu xamle mooy jot na parti démocratique sénégalais dal di bàyyi bàyyi teg lépp ci suuf si li nga xam ne. moom la nekk di def boobu ba léegi ngir ñu dakkal li di processus euh, électoral bi euh, ñoom tey ji waa PDS ñu fas yéene déposé fi nga xam ne moom mooy cour suprême ab recours ngir euh, daanaka gantal décret présidentiel bi nga xam ne moom la njiitu réew mi Macky Sall jël ngir ñu daal di amal élection yi 24 Euh, mars bi ñu euh, dëgmal parti démocratique sénégalais nag loole la bëgg dàkkal ngir processus bi ñu daal di koy ajandi Mamadou Ibra Kane nag ma ngay xamle euh, ca Sénégal ne ñëpp gis nañu li nga xam ne moom moo am te daanaka ba ñu toxalee élection yi juróon na njaaxare ci sénégalais yi jaxasewoon na xel yi ba nit ñi tàmbaloon di stressé ak yu ni mel. Euh, donte sax nee na itam processus bi kenn mënul wax ne lépp baax euh, bëri na lu ci lënt euh, waaye nañu fexe rek ba ñu dem ci ay élections ci jàmm loolu moo gën loole lay ci loolu daanaka lay woo ñi nga xam ne ñoom ñooy wax parti démocratique sénégalais tey jii ñu nam déposer seen recours fële ca cour suprême. élection présidentielle mu mel ni temps d'antenne bu Bassirou Diomaye Faye dañ ko daal di suspendre. waaw sene euh, euh, site web bu Sud Quotidien ñoom ñoo ñu koy euh, xamle ba Bassirou Diomaye fay nag moom mooy nekk mennam candidat ci 19 yi nar a dem koo xam ne en tout cas ba fi nu toll message ba mu war a am jàllale ko ci RTS comme ni ko yeneen i naataangoom defee moom mooy nekk mennam candidat moo xam ne du ko mën a def ba njëkk bi gàntal nañ ko. CNRA euh, dal di euh, def lu ni mel ci bataaxal ba mu fësal nag ngir xamal euh, loolee nee na nag ca jamonoy jàllale li nga xam ne mooy message bu Bassirou jomay fay kaneen ku wute ak moom kandidaa bi di Bassirou Diomaye Faye moom moo ñëwoon ngir jàllale message bi te méngoowul ak li nga xam ne moom la yoon daal di euh, santaane loolu moo waral euh, temps d'antenne ba ñu amaloon 10 euh, mars yemook démb ñu daal di bloqué li nga xam ne moom mooy message yu kandidaa candidat Bassirou Diomaye Faye bi nga xam ne kii di Moustapha Guirassy moom moo ko fa teewaloon moom mi nga xam ne moom mooy président Euh, kii wam euh, moom moo moo moo nekk euh, président directeur campagne mm-hmm. moom moo ko fa teewaloon ngir jàllale message bi waaye CNRA nee na loolee méngool ak code électoral bi la ñu fa dëxëñ. Ramadan 2024 Kajoor mu mel ni weer wi nee nañu feeñ na fële ca Kër Massar. waaw ñu ngi mel ni ñuy dëgmal li nga xam ne moom mooy ñaari tàmbale koor. ndax ci jamono yi ngay guux sa kafe am na ñoo xam ne tàmbale nañu euh, démb <laughs> su ko defee euh, ni ki démb nag ginnaaw <laughs> ñi leen teewal ci Sénégal waaye euh, ci yeneen réew yi ci Euh, Afrique ñaari kuréel ba bokk na ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa commission d'observation du croissant lunaire ak coordination des musulmans du Sénégal ñoom ñaar ñëpp nee nañu euh, seeni ndaw fii ci Sénégal ñu nekk ca Kër Massar gis nañu fa weer wi ca Côte d'Ivoire naka noonu ca Cameroun ba ci bi Saoudite moo waral nag Euh, bis bu njëkk ci koor gi ñu fas yéene ko tàmbali nit ki tey yemoo ko fukk benn fan mhm. ci weeru mars euh, muy euh, fan wu njëkk ci jamono joo nga xam ne lu ëpp ci communauté musulmane bu Sénégal ñoom nit ëllëg la ñu fas yéene tàmbali li nga xam ne moom mooy koor gi ñu wax ci loi de protection des femmes enceintes en milieu professionnel waaw euh, xibaar la boo xam ne dafa dem laqatu si lépp loo xam ne politique la ba finalement euh, suñu moyul yooyu de message yu bëri yoo xam ne mu ñu ngi ko jagleeloon 8 mars bi dafay daldi euh, seey ndax politique dem nañu nag jukki lu ni mel ca Pulse Sénégal ñoom ñoo daldi addu ci mbir mi ne nag ba léegi soxna yaa ngi xaar boobu lépp loi ñu daal di koy euh, jëmmal ndax nag euh, loi boo xam ne euh, ba léegi assemblée nationale voté woon nañ ko ba ñu ko voté nag ñu yaakaaroon ne dina am njeexital bu am solo. dafa sax war a am jeexital bu am solo bu bis buñ ko euh, jëmale ci li nga xam ne moom mooy jigéen yi liggéey te di fayeku weer nekk ci bërëb bu liggéeykaay yi euh, ndax euh, ñoom ba ñu ko wotee amoon nañu nag ouf de soulagement amoon yaakaar ci njeexital wa discrimination bi nga xam ne Euh, moom moo ñeel nag jigéen wérul yi ci bërëb bu euh, liggéeykaay yi euh, juróomi fan ci weeru avril ci atum 2022 ba ñu voté loi bi jàppoon nañu ne loolee dina dal di dakk loi boobee nag ba léegi kenn daanaka jëmmalu ko muy loo xam ne dafay protéger Euh, jigéen wérul boo xam ne euh, dafa nekk ci bërëbu liggéeykaay ba léegi euh, doon mënaguñ ko lii mu mënaguñ ko jëmmal tax na nag ba yenn saay en tout cas lu bëri ci ay jigéen suñu wanee lor dañuy am jafe-jafe ngir maintenir seen liggéey ñenn ñi dañ fay jaaree sax faf ñàkk seen liggéey ñenn ñi euh, mu jural leen euh, yenn euh, blocage yi par rapport ak avancée boo xam ne war nañ ko mën a am ci seen liggéey ak yu nu mer donc njeexital yi dafay bëri lool te mu nekk loo xam ne lu war a mën a ñàkk la ndax Euh, comme ni ñu koy waxee rek jigéen moom euh, boo ko bayoon sax mu def maternité am pendant dix ans bu bu bu bu paree ak maternité am aussi benn at la lay liggéeyal euh, lu la góor mën a liggéeyal ci ci vingt ans. Mm-hmm. donc ça ça ça ça sa ça sert à rien ñuy def loolu donc nañ jëmmal. loi bi nañ jëmmal loi bi su ko defee ñi ci war a bénéficier te mu yey leen lool. ñu mën cee bénéficier. am na solo jërëjëf Kajoor euh, moom moom lépp lu nga xamante ni dafay laal jigéen daf ciy daal di sawar moom Kajoor moom moom c'est un vrai féministe euh, loi bi nag loi bu am solo la ñu war koo jëmal parce que nag comme ni nga ko waxee am na jigéen yu nga xamante ni bu ñu wannee lor euh, dem ba toll ci yenn étapes yi pour ñu liggéey dafay xaw a jafe am na ñu nga xam ne sax fa la ñuy jaaree daal di arrêté li nga xamante ni moo di seen liggéey daal di jël des mois laataa ñoo daal di reprendre mais loi bi pour ñu jàllale ko dina doy waar ndax fi mu ne nii politique bi daal lëmbi réew mi taluñu dara. ñu dara non de manque de volonté parce que depuis deux mille vingt deux ba léegi euh, waxuñ ci dara bon moi je pense que aussi jigéen ñi ñoom xam nga bàyyi nañu ba ba kii bi nii foofu naa leen xaw a égratigner tuuti. 8 mhm. euh, mars bi ñu soulever ko c'est des combats yoo xam ne da ngay fàtt nit ki. Mhm. chaque jour nga toute l'année nga mhm. nekk ci toute l'année ba am ko. donc boo leen bàyyi ba après 8 mars ngeen génnee tous les problèmes jox après nii lañ koy def en fait on va en parler benn jour ñaari jour après ñu jàll ci leneen te loolu moom boo tànk yaa ngi def noonu euh, on aura du mal à à day mel ne suñu code de la presse bi rek ba léegi fa mujjee donc du coup même chose la rek. Mhm. Amadou maa ngi lay nuyu dalal ak jàmm. Aïcha Diaby maa ngi lay fay merci beaucoup ci accueil bi. naka ngay gisee loi bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee. waaw pense que ni li ci Kajoor wax rek moo am solo c'est-à-dire à chaque fois on est dans ces dans de choses c'est-à-dire loi dañ koy jël mais après pour appliquer ko mhm. moo nekk moo nekk problème je pense que c'était vraiment une avancée notoire ci wàllum égalité des sexes parce que jigéen xam nañ bu baax a baax jigéen. situation yi nga xam ne daf koy daf koy nekk bu nekk bu la donc c'était une avancée boo xam ne mënoon nañ ko jàpp ci wàllum égalité des sexes mais après donc mais mhm. aussi je pense que nii comme ni ko waxee politique lañ nekk temps politique mais actuellement xam ne mooy politique assemblée nationale mhm. assemblée nationale seen liggéey c'est pas de faire la nga xam ne moom mooy moom mooy les lois l'administration son rôle n'est pas de faire de la politique l'administration son rôle c'est d'appliquer li nga xam ne moom mooy moom mooy les moom mooy les lois donc nañu nañu def li ñu li mel parce que politique yàggul yàggul dara dara dara c'est quelque temps donc li nga xam ne moom la ñu war a def au Sénégal mooy bu ñu jëlee loi ñu appliquer parce que je pense que ne loolu mooy wane volonté mais jël loi après publier ko dans les tiroirs loolu je pense que ne amul benn benn benn benn solo. alors Kajoor yéen moom yéen ngi ci seen weeru koor. Ah. waaw gis nga. léegi nag weer bi gis nañ ko fële ko ñu ñoom <laughs> wëz weer bi feeñ na ngeen koñ waa Kër Massar j'espère que um ngeen rek. ah mais bon loolu moom defe naa léegi miin nañ ko waa ñaari ñaari weeru koor yi bon sauf ko kamara kamara yi ak <laughs> ak looyee nii ñoom buñ nee pour warandoo moom mën nañu nekk di tendeefal waaye buñ demee ba wari wari moom ñëpp a tàmbali bi moom moo dul loolu rek ak mbayeen ni mais on comprend. mais non wax ñu ndax yow gis nga koor euh, bi ndax Kër Masar ngeen Amadou. war nañ ko ah? war nañ ko mën a dépasser di Aïcha man damay man damay laaj ci man loolu moo ma jaaxal Aïcha wala ñaari weer moom ci àdduna bi. <laughs> moo ma jaaxal bu fekkee ñaari weer ñoom ci àdduna bi nañ ñu ko wax parce que man je pense que ni dès l'instant que ni weer bi feeñ na benn dëkk musulman wax na ni gis na ko je pense que war nañoo booloo umma islamique bi yëpp warandoo mais nag dama jaaxle bu fekkee dafa ñaari weer yoo xam ne dafa am ci ci àdduna bi buñ ma ko waxee boobaa dinaa ko mën a comprendre mais mhm. puisque comme que waxaguñ ma lool donc je pense que war nañ mën ko dépasser lool donc bu ñu déggee ne benn pays musulman gis na weer bi donc ñun ñëpp ñu déggu ci lool la umma islamique ñu warandoo parce que lii tamit ñaaw na trop Euh, alors ñu ngi leen en tout cas euh, souhaiter euh, vraiment euh, Ramadan Moubarak yàlla na yàlla def weer wi mu nekk weer wu gën ci ñun alors euh, Bassirou Diomaye Faye mhm. waroon na jàll te temps d'antenne bi fële di koy suspendre naka nga gisee li ni mel waaw c'était prévisible parce que bon après la loi c'est la loi loi bi moom moo wax c'est le candidat qui passe à l'antenne donc maintenant à défaut du candidat est-ce que loolu yëpp ay vide juridique la parce que bu fekkee candidat bi euh, bi ñuy bind euh, loi bi peut-être ils avaient pas prévu qu'un candidat puisse être en prison au moment des élections donc loolu vide juridique la boo xam ne euh, kenn mënu ci dara la logique aurait voulu que à défaut du, du candidat qui soit disponible au moins mu am quelqu'un qui le représente genre bu fekkoon ne dañ defoon ci texte yi le passage de la coalition mm-hmm. et non le passage du candidat mm. bu boobaa day gën a leer parce que même à, en l'absence de du, du candidat il y aura toujours quelqu'un pour euh, à ça donc peut-être euh, c'est pas le cas donc quand on dit c'est le candidat c'est le candidat maintenant euh, le, le le reste c'est de voir comment faire pour que ce candidat retrouve la liberté mm. pour que mu mën a ñëw euh, def nekk au même pied Euh, que ñi nga xam ne au pied d'égalité ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay naataangoom. ci mhm. ci campagne bi. Euh, Amadou. waaw li la am c'est la c'est la loi <coughs> Aja mi ngi wax aussi li nga xam ne mooy mooy mooy vide juridique c'est la loi on l'a appliquée c'est normal mm. mais man dama ne vide juridique. c'est la loi mais est-ce que waruñu woon euh, xool beneen ah. alternative. vu que dañu nekk ci benn situation bu exceptionnelle donc tout simplement tout simplement loolu laa bëgg c'est-à-dire na vide juridique ma ne ko man amul sax vide juridique parce que le il est là au Sénégal mën na wax dara jotu ko donc war nañ mën a ñoom déplacé wu fi nga xam ne foofu la nekk ñu enregistré ko pourquoi pas ñu enregistré li nga xam ne mooy la personne parce que la loi li mu wax dafa leer c'est la personne candidat mais la personne candidat xam nañ fu mu nekk xam nañ ci li nga xam ne moom la nekk su mënul ñëw ngeen dem que niñ ko defee nii vide juridique amul ci mais yaa ma neex la gën a doon. Hmm, doy na waaw alors Kajoor euh, euh, kii nii nu mu tudd. Euh, ki nekk ITV. j'ai oublié son nom Mamadou Brakan Mamadou Brakan mais balaa may wax si moom damay wax un peu ci PDS waa PDS ñoom lan lañ bëgg ci seen recours bi ñoom daal fii lañ ne rek di lëmb dëkk. <laughs> ah man daal sénégalais la man dama xamul c'est-à-dire ñoom dama xamul dañoo weggul sénégalais wala ils essaient juste de de de de, de rouler pour euh, ceux qui ne veulent élection yi jàll mais sénégalais sonn nañ nañ dimbale nit yi ñu dem ci ay élection ku ku yàlla def ne moom mooy moom lay parce que fii yàlla rek mooy falan ah. ñi yaakaar ne ñoom gagné nañu ba pare sax dañu dañu seen bëgg-bëgg rek la ñu wax mais li yàlla def ba pare def na ko bu yàgg balaa balaa balaa balaa ñuy toll fii nii <laughs> mhm, mhm. kon buñ fi nekkaat di créer beneen situation boo xam ne da ngay xool économiquement lépp taxaw les gens ñi ñi war a mener seen activité économique lépp a taxaw les les les gens sont stressés da y en fait. parce que ñoom boo xoolee PDS ñoom dañoo delloo sax naar bi xamoo parce que ñoom ils étaient en perte de vitesse. seen coalition bi ñu defoon ak Yewwi Askan Wi. Mhm. moom moo relancé waat seen santé politique boobu noonu. Mhm. donc mais tey jii ñoom il faut pas que ñu ñu dem ba sénégal yi jéppi leen. Mm-hmm. te ci loolu la ñu la ñu jëm nii parce que. et puis récemment ils sont ils sont parce que lu mu bëgg rek. à force de de faire parler de toi en mal. da ngay dem ba yaakaar ne yow xam nga nit ñi da yaakaar ne yow da nga puissant parce que ñi ngi wax ci yow. yow yaa nekk di ki et puis yaa elle est en le, le PDS est en connivence ak ak ak l'État ak ak le régime mm. régime bi nga xam ne moom aussi bu sañoon élection yi du du am moment bii nii parce que tenté na lu ko mm. donc euh, moom mu am soutien wu état bi loolu moo tax mu gën a am doole mm. parce que bu bu bu ko état jàppalewuloon ci initiative am bi il serait réduit au néant parce que ñoom déjà lu yàlla xam doy na avec un leader boo xam ne ñemewul sax euh, génn def vidéo sax envoyé leen ko benn euh, arti euh, intelligence artificielle la fi plaqué après c'est que des des des ay post yoo xam ne kenn xamul lan la. Mm. donc c'est à, à travers ces genres de post là. Mm. la ñu bëgg a tenir euh, le pays en otage ça c'est pas normal. doy na waaw Amadou. Kajoor wax na ko parti boomul candidat. je pense que ni amul intérêt pour ñu reporter li nga xam ne moom mooy les élections parce que ñoom amuñu candidat boo xam ne dañ koy yóbbu ci li nga xam ne mooy élection présidentielle donc ñoom ban intérêt la am ci reporter des élections wala ñu tenir des élections d' leur candidat il n' pas là deuxième il est frappé par l' incapacité c' est dire mënul bokk ci li nga xam ne mooy kan ci présidentielle parce que dafa am double nationalité que le pouvoir en place daf leen a xaw a jege c' est à dire ñoom actuellement ils ñu am doole bii ni ñu am actuellement parce que je pense pas que ne actuellement dans un pays sérieux benn coalition boo xam ne amul sax candidat boo xam ne c'est légitime valable mu andi autant de autant de problèmes ci li nga xam ne moom mooy réew bi donc depuis loi bi nga xam ne moom la ñu dugaloon pour proposition de loi ba je pense que ne depuis heure boobu noonu waroon nañ leen arrêté mais arrêté wuñ leen parce qu'ils roulent avec ils roulent avec le pouvoir donc ils avaient les mêmes intérêts mais je pense que waroon nañ leen stoppé dès le début parce que candidat boo xam ne amul sax candidat bu légitime je pense que waru woon def autant de bruit fii ci Sénégal doy na waax te lu dugg assemblée ñu mi ni lay doxee. parce que Benno ñoom bëggatuñu seen candidat la preuve. Euh, moi j'ai couvert le le de de lancement bu ñu def week-end bii nii fële mais c'était cacophonie totale on arrive à 15 heures pour le le le gars qui devait se pointer à 16 de 22 heures. il il était à ba waaw mais mais dalay woon le manque d'organisation boo xam ne am na et le manque d'engagement parce que mhm. euh, à la base kii boobu noonu mënuloon mënoon nañ ko reporter mhm. Euh, mhm. au lendemain wala voilà, je sais pas moi parce que mënoo am rencontre avec le le le nga nga moom heure bu la neex la lay recevoir après nga jóge foofu pour ñëw fi après tu convoques les gens à à 16 les gens ne sont même pas euh, euh, ñi ñi ko jege ñu ñëw une bonne partie de de de de de de Benno Bokk Yaakaar ne pas venu mhm. wala ñu ñëw aussi ils n'osaient même pas aller devant ci ginnaaw la ñuy toll di calomnier moi j'ai eu même ouais. euh, c'était tellement décevant hmm. des gens qui viennent qui qui qui, qui oh, dañuy ñëw di ma wax c'est-à-dire que xam nga ñoom lu ñu comprendre mooy man pour ñoom man je suis contre le le régime euh, du coup dañuy ñëw di di yebbeeku en fait di ñëw di yebbeeku des gens trop petits di ñëw di yebbeeku di pour ñoom posture boobu noonu day daf daf leen di da man il forme des choses pour que man ma ñëw si si si mm-hmm. antenne si plateau di wax waaw mais ils sont en train de de de couper la, la branche fi nga xam ne foofu la ñu toog en fait te dommage c'est petit de leur part moi j'ai été choqué quand j'ai vu certaines réactions, certains comportements. Et pourtant, tu es venu quand même. Il va te voir, il va penser que il va penser que danga ñëw da nga ko ñëwal pur et dur, je te dis. Les gens ils sont d'une hypocrisie mais maladive en fait. J'ai halluciné quand j'ai Ça c'est de l'hypocrisie. Je te jure. Mais mais mais xam nga lu ci grave. Mhm. mooy que hmm. en fait, ils se sont divisés à un moment bu nga xamante ni c'est pas le bon moment en fait. tey ñoom li leen war mooy ñu bennoo mhm. ànd doon benn mhm. ànd ak ki nga xamante ni moom la la moom la seen président tànn mais tey bu fekkee dañu dañu jaxasoo et puis li ci gën a graaw mooy que xeex bi ñoom la ci seen biir mm-hmm. mais s'ils continuent comme ça ils vont perdre les élections mais wax président mi ngay wax moo ngay wax noonu moo tànn moom moom aussi moom mooy mooy mooy bénir da xam nga moom moom dafa dafa graaw nag dafay joxe fii jël fële jë jëlaat ko ci beneen côté bi parce que c'est lui qui bénit euh, toute cette euh, dissidence là mm, c'est-à-dire ay ay ñoom Thérèse Diouf gis nga fu mu ko plaqué au ministère euh, Mame Mbaye Niang mu mu kii ñeneen ñoo xam ne renforcé par mm. voilà mm. mu mu mu dépouillé Amadou Ba de après sous pour mu consa consacrer à à à mais parce que les ngi noonu ñoom ñoom ñëpp mu génnee leen moom moo tànn du Ba moom moo ko tànn ba pare muy gor ay tànkam en fait c'est ça la réalité parce que Macky Sall au sein de Benno Bokk Yaakaar mhm. Macky Sall lu mu bëggul kenn du ko fa wax dëgg boo déggee ay ñoom ju Diofaye ay ñoom Mambay Niang di di wax naar bu ndaw bi lu mu wax rek ci bu mag bi la ko jëlee ñoom moom moo leen koy waxloo ñu koy wax donc qu'il soit honnête pour une fois envers Amadou Ba bu fekkee ils n'en veulent plus moom mu jël ay responsabilités xam mais lii c'est pire même que les les les opposants en fait envers Amadou Ba parce que yow ñi ñi nga ñi ñi fi nga far sax ñoom ñoo la yéene dee en fait. dafa dafa métti dafa métti mais je pense que ni am na yenn aspect yoo on peut comprendre yooyu d'autres aspects on ne peut pas comprendre parce que man euh, le fait que mu mu génnee Amadou Ba ci li nga xam ne mooy poste de euh, premier ministre bi là on peut comprendre ça daf koy soulager un peu pour mu dem defi li nga xam ne moom mooy campagne parce que mënoo nekk premier ministre à un mois des élections un mois sax matatu ko donc des élections nga métti trop mais de l'autre côté aussi on n'arrive pas à comprendre ci biir coalition bi scission bi nga xam ne moo nekk ci biir ci biir ci biir parti bi parce que Amadou Ba c'est vrai que ni président de la République daf ko dafa conforté ci li nga xam ne moom mooy moom mooy le candidat de la coalition mais boo xoolee ci biir biir biir xawma lu tax les adhérents de li nga xam ne mooy APR wala candidat wala coalition bi bëgguñu ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba parce actuellement je pense que ci la waroon mën a gën booloo doon benn parce que actuellement ñu ngi dem ci élection présidentielle moom moo leen fi nekk tey jii moom bu gañee ñoom il continue li nga xam ne moom mooy seen seen régime te bu pertee ñoom ñëppay perte te fan ngay xamee ni comme li di Kajoor di wax hypocrisie ñi nga xam ne actuellement ñoom ñoo fi nekk di ko wan ginnaaw bés bu yàlla defoon mu doon président de la république ñoom ñooy njëkk retourner li nga xam ne moom mooy la veste ci biir li nga xam ne moom mooy coalition bi donc naan ko yaa fi nekk ak yaa fi nekkoon ak yow la fi président teg yow yaa assuré li nga xam ne mooy intérim bi donc pour te dire que langum politique Aïcha langum hypocrisie la langum positionnement la c'est-à-dire ñun ñoo nax suñu bopp rek mais ñoom ils savent très bien positionnement la nañ mhm. dem l' autre côté pour mhm. la coalition Diomaye j'ai vu hier une mhm. photo Kajoor ñu def jomaay ci photo bu bu bu significative mm-hmm. ñu def jomaay ci digg bi mm-hmm. def ñi ko war ñëpp mais boo xoolee ñi ko wër ñi ci ëpp ils sont du système en fait. tout simplement boobu tam c'est c'est une autre les Mimi Touré contradiction Mimi Touré qui euh, ñoom ñëpp qui fait office de de de de de ay ñoom bari taw ah, xam nga. Eh, xam nga c'est le système Diomaye c'est le bi ñoo ko wër ba nga demee ba nga demee ci ci rencontre coalition bi excusez-moi Kajoor ñoom ñoo nekk ci première place bi. Hmm. toog ne dañuy xaar ki nga xam ne moom mooy seen président muy Diomaye Faye donc pour te dire que langum positionnement la tout simplement ñi ngi gis nii nii ci politique bi positionnement doo nga leen tax a jóg leneen taxu leen jóg seeni intérêt ñoo leen ñoo leen tax a jóg d'autant plus que ñuy woowaat li nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye Pastef bi nga xam ne moom mooy bu yàgg bi ñu xoolaat bu baax a baax li nga xam ne moom mooy seen moom mooy ñi leen wër parce que je pense que le projet bi bañ koy construire construire ak ñii nekk fii tey alors que les Sénégalais avaient adhéré au au projet sans pour autant ces personnes là viennent donc ñoom nañu xoolaat bu baax a baax a baax li nga xam mooy seen encadrement parce que ñi nga xam ñi leen di dugg bëri nañ te ñiy gàmm ak ñuy ras jëm comme ni ko Ndeye Péta di waxee. dëgg la voilà comme ni nga koy waxee. non mais je te jure man dama xool image bu xool xool et je me suis dit pourtant c'est la réalité. sa sa parrainage des élus nga jox ko un pur produit du système déjà c'est c'est c'est quelque chose bon après on te dit ils étaient toujours dans dans la stratégie politique mais gis nga aussi pour et plan stratégie politique bi aussi na na méngoo ak mhm. image bi nga xam ne moom ngay joxe mhm. parce que tu peux pas te retrouver avec des ci sa ci sa directoire de campagne des des des des Mimi Touré des des Moustapha Guirassy des Mary Teuw Niane après ñoom ils ravissent même la vedette aux aux aux, aux patriotes anciens. authentiques. Ouais. Bon, qui je sais là pas, depuis le début. je sais pas après quel plat ils vont nous servir. <laughs> On attend de voir quoi en fait. <laughs> on attend de voir yàlla yàlla doolu sutura <laughs> mbir mi fi mu ne nii Ousseynou comme suppu kànja lépp a jaxasoo ñu ànd ak yow léegi-léegi bu baax mu noppee ñu dikkaat ci plateau bu ko defee ñu mën a waxtaanee li nga xamante ni moo di suñu rubrique avocat le droit à votre service